dal leen ak jàmm ci VIP People TV ma dikk ak yenn ci flash info li gën a fës bokk na ci xalifa Ababacar Sall mi nga xam ne génn na ci pat pataaral ga mu nekke woon ci communiqué bu yeewi askan bi nga xam ne jot nañu ko génne di xamlal xalifa Sall ak waa këram ne ay workat dëggantaan lañu ba tax na daal dinañ leen di génne ci boobu lépp kuréel di yeewi askan bi ginnaaw ba coow li bare ba mu demee ca dialogue bi nga xam ne njiital réew mii di président Macky Sall jotoon palais de la république moom Khalifa Sall leneen li nga xam ne itam moo gën a yokk coow lii mooy euh, la ñu doon def ca mairie bu Ndakaaru Njaay ba tax ñu daal di euh, folli Abass Fall tekki ab ndombal tànkam jox ko keneen koo xam ne moo ko wuutu ci boobu lépp euh, barab ñu jàpp ne daal ak wor dëggantaan la moom Khalifa Sall nag tontu na yeewi askan bi di leen xamal ni leen kenn mënuma génn ci yeewi ndax kenn gënuma caa yey tey tamit nag sart yi nga xam ne moom la ñu tëral ci yeewi askan bi mosuma caa jalgati tax na nag man Khalifa Ababacar Sall kenn gënuma yeey ci yeewi te ba tey maa ngi wéy di des ci yeewi askan bi te itam dañuy wéy itam di des ab famille boo xam ne daal famille bu déggoo la moom mi nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall noonee la tontu waa yeewi askan bi jàpp na ni daal këram la mooy ki ko moom ba tax na kenn mënu koo génn ci boobu lépp kuréel lu génn Ousmane Sonko ci kaso bile Ibrahima Sall daal dina ci wax waaye la mu ca wax ñu bare bari ñu ngi wedd yooyu li information mu ci jot a mu jàpp ne daal Ousmane Sonko ngir mu génn ca ndungu siin nga nu ko fat ca Sébikotane la mu war a def ci ay conditions ya ñu ko jot a tëral loolee lay lànk te du ko mës def ci kaw suuf tax na suñu wattandikuwul njiital euh, Pastef gawoon du mën a génn ca ndungu siin nga mu nekk moom Ibrahima Sall mu jàpp ne sax dañ ko daal di euh, bëggoon a génn Sénégal yóbbu ko ca Guinée daal koy defal aw lay soo xam ne daal dañ naan ko demal nga daal di faju ji ba noppi nga tëj saw làmmiñ bañ a addooti mbaa mu yëy jëm ci mbirum politique fii ci Sénégal tey sax nag euh, jantub Sénégal dootu ko tiim dafay génn réew mi ñu daal di koy euh, raye carrément ci réew mi di Sénégal loolee lay euh, lànk ba tax na moom Ibrahima Sall sax daf cee jot yokku ne am na benn kilifa diina goo xam ne ku siiw la demoon na waxtaan ak Ousmane Sonko ci wàll wi ni waaye njiital Pastef gawoon di parti bi nga xam ne jotoon nañu ko tas moom milee dafay lànk yooyu la condition ba tax na ab libération daal mëneesu yaakaar waaye su nangu woon loolee ñu ko tegal ci ay sart ba tey jile ma ngay ndekkee ak añee këram gi nga xam ne mooy ca cité kër góor gi wala sax ñu daal di koy génn réew mi mu dugg ci leneen moom président Bougane Gueye Dany ñoom nga moom mi nga xam ne moo jiite um, kuréel gi di gëm sa bopp daal di nay addu ci Pastef ak tas gi nga xam ne jot nañu ko tas seen parti muy digal ñi nga xam ne ñoo nekk ci Pastef googule ñu koy tuddee mouvement Pastef ngir mën a daal dem ci élection euh, atum 2024 yi ñu dëkkmal ngir ñu mën a fal ab njiitum réew fii ci Sénégal moom Bougane dafa jàpp euh, tas gi ñu tas parti bi ci la ñu sukkandiku ba tas ko amut lenn loo xam ne mën nañoo jàpp ne ab dëgg la wala sax mu jaar ciw yoon waaye ay euh, tuuma kott la yu ñu sos teg ko ci ndoddal ñi nga xam ne ñoo fare ci Pastef ndax gis nañ fi leneen lu ko gën a pur waxuñu ci defuñu ci mbaañu yee ca yàb bi jàpp ne dañ leen a jaay rek ngir génn leen ci doxalinu réew mi ak itam euh, def gi ak dindi gi moom nag mu jàpp ne ba tey Pastef mën na woy di dund su fekkente ni ña nga xam ne ñooy ñu ko jiite daal di def yi pexe ngir mën a nos ab mouvement boo xam ne euh, ci la ñuy sukkandiku nag daal di indi seen mbër fal ko ngir mu mën a bokk ci ñi nga xam ne daal dañuy jongante ci atum 2024 ci palop njiitum réew gi nga xam ne dinañu ko amal ci atum yaari junne ak ñaar fukk ak ñeent moom jiital gëm sa bopp boobu lépp xalaat ci tas gi ñu tas parti pastef pastef ga El malik Ndiaye mi won sen po communication dafa dal di xëy génn ab information di xibar bo xamne dal xibaru tis la ndax te kenn ci ñom dal di nay wuy ji boromam làkku na génn na aduna ñukay wowe lance na Traoré lance na Traoré mile dafa dal di génn aduna ginnaw bi nga xamé ne amna as wop su ko su yag yag so xamne moko moo ko mu dal di ci muju wuy ji boromam tax El malik Ndiaye génn ñu daal di génn communiqué di xamale ne nit ki dem doog bokkoon na ci nit ñi nga xam ne daal ñu fonkoon Pastef la ku amoon ab dignité la ci boppam waaye tamit nag ku dëgg woon la te projet bi nga xam ne moo la ñu tegoon ngir Sénégal yàlla na ko suñu borom daal di xaare aljana daal di koy accueillir ci aljana yi gën a kawe moom El malik mooy ki ko ñaanal loolu le ci sama kaddu VIP people di leen jàll seen way dawlu le ba noppi itam di ñaan suñu borom yeesal yërmande ci kaw jëmm jooju jile ñu wax lu jëm ci mbirum soble ak coow li nga xam ne jot na cee am jamono jile fii ci Sénégal muy njëgul soble si nga xam ne daal daanaka mu ngi ci yaari téeméer ak lu topp wala sax lu ko ëpp loolu tax na Sénégal ñu bare bari di ko jooytu ak di ko naqarlu di xam ne ni daal soble fi mu toll ni kenn mënu koo laal ci jaba gi nga xam ne mu ngi fii ci Sénégal tax na ñi nga xam ne ñoo yer wàll wi ni mel ñoom nag jot nañu ca dox ay jéego bu ñu nemmeekoo nag ca port autonome bu Ndakaaru Njaay jot nañu fa wàcce lu toll ci juróom-ñaari junni tonnes yoo xam ne daal jamono jile dana wasaaroo fii ci Sénégal loolee nag mënees na caa njort ni bis bu agsee ci réew mi euh, njëgul soble si euh, dana delluwaat ginnaaw bu baax a baax a baax gannaaw bu mu jugewee ci li ñuy tuddee huit cent francs fa dem ba mille deux cent am na sax ci yenn dëkk yoo xam ne boo fa danañ la ko jaayee lu toll ci euh, lu toll ci mille cinq cent francs fa wala sax deux mille francs loole nag mu muy njëkk yoo xam ne njëkk lu jéggi dayoo la fii ci Sénégal ñoom ñi nga xam ne nag ñoo yor wàll wi ni mel fii ci Sénégal ñu ngi ci dox ay jéego ngir mën a daal di soppali li ni mel indiwaat ko ci anam bi nga xamee ne daal moom la ko sénégalais yëpp bëgg muy wàññiwaat njëgul soble li ndax jàpp nañu ne seer gi mu seer ci marché bi bokk na ci li ko waral mooy ñàkkuk soble gi nga xam ne daal am na ko fii ci Sénégal tax na ñi nga xam ne ñooy jëwri ñi ñoom jamono jile ñu ngi ci euh, def lu mën ngir mën a daal di fii ci Sénégal li dellu ca na mu nekke woon docteur Babacar Niang moom nag mu ngi àddu ci euh, njiital Pastef la woon di Ousmane euh, Sonko mi nga xam ne ma nga ca nungu siin nga ca euh, Sébikotane moom bi nga xam ne ab médecin la fële ca fa nga xam ne moom moo di suma assistance ga ca cité kër góor li moom ngi moom bi nga xam ne mooy docteur Babacar ñaa nee na nag Ousmane Sonko laata muy dem ca prison ba moom nag mu ngi woon mu ngi ne woon cocc ak wér-gu-yaramam dara gàll guusewu ci lépp fa dal nañu ko di tuumal daal état bu Sénégal maanaam daal jël na lépp daal di koy wékk ci seenu ndodd ndax jàpp na ne ñoom kott ñooy ñi koy teg li ko li mu nekk jamono jile waaye Ousmane Sonko amul woon benn tawat soo xam ne daal doon na ko jàmbat ci aw yaramam la laata muy dem euh, kaso waaye bu duggee kaso nag ñu tàmbali di euh, waxtaane aw wérgu yaramam banaan am na ay euh, tawat yoo xam ne mu ngi koy jàmbat jamono jile nañu jàpp lépp daal di koy wékk état bu Sénégal ndax nag état bu Sénégal jàpp na ni ay xonk nopp lañu ku ci mel ni Juan Branco mi nga xam ne ba mu duggee Sénégal dañ ko daal di jàpp ACR daal di koy tëj ci dibeer waaye ca altine ji ñu daal di koy jëlal ab avion su neex daal di koy delloo ci réewam mu ne loolee nag ab daanaka daal ab complexe mënu ko weesu ndax am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci réew mi ñu tëj leen ci anam yi ni mel waaye ba tey kenn mënu leen a libéré ña nga fa ñu nekk ci biir kaso ba li ko waral nag bokk na ci firnde yi ma leen di jox man docteur fii ci sama barabu liggéeyukaay bile ñoom ñëpp kenn ku ci nekk daal nañ lay teg ci yoon waaye am na ci benn naaru libanais soo xam ne bokkoon na ca kookee ba tey kenn tegu ko loxo dañu ko libéré bàyyi ko muy doxe ay soxlam loolu nag dañ cee war a jug taxaw ci bu baax a baax xam ne yoonu Sénégal nag dafa nekk ab yoon soo xam ne daal daanaka mënees na leen a jàppe ñu am complexe ay xonk nopp ba tax na ñun ñi ci réew mi daal ñooy ñi nga xam ne ñoo amul ndey waaye ña ci bitim réew ñoom am nañu ay ndey ba tax leen jàppee ñu mën leen a bàyyi ñu doxi seen yi te ñun nag moom amu ñu sañ-sañu wax li ñu naqari mbaa sax ñu daal di koy wane fii ci Sénégal mbokk ak xarit yi doon teewlu fii ci VIP People TV li moo nekkoon la li gënoon a ci flash info bile mba leen di jox dig daje ci yeneen i jotaay ak yeneen i information jërë ngeen jëf.